dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaar yu wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen raw xibaar boo xamante ne mbokk internet info 221 niki ñu bëri nag ñu ko doon xaaree jëm rek ci Abdoulaye Daouda Diallo bi nga xamante ni daf doon janoog ak taskatu xabaar jëm rek ci gannaaw ba nga xamante ni président Macky Sall daal dina tànn nag Amadou Ba mu fas yéene nag jiite coalition Benno Bokk Yaakaar ci élection présidentielle bari woon ñool ñoo xamante ni jot nañ ci génn ku mel ni Mame Boye Diao Aly Ngouille ak i ñeneen ñoom ñëpp jot nañ ci génn waaye nag Abdoulaye Daouda Diallo moom mi la nag daal dina findeel askanu Sénégal ne busul puusul randul te dàkkal na nag candidature am jëm ci élection yooyee dafay fas yéene rek bootu ci ginnaaw président Macky Sall rawatina nag Amadou Ba mi nga xamante ne moom la ñu far rek ngir mu daal di toppal boobee coalition ca jongante ba ginnaaw ba nga xamante ne nag moom Abdoulaye Daouda Diallo janoo nag taskatu xabaar yi mu doon lu askan wi doon yàkkamti xam rek fan lay féetee dafay génn ci benn bokk yaakaar wala nag day utali coalition boppam mbir mi daal dina leer nee nag ba mu xalaatee bu baax a baax fas yéene présent Macky Sall moom Abdoulaye Daouda Diallo nag ay ndaj yu bëri mu jot ko amal ak président de la république waaye tamit ci waxtaan yu bëri yoo xam ne jot na ko amal ci ab xaritam ak i sympathisant am décision bi nga xamante ne nag jël na ko yàgg na di ko xalaat di ko saytu ak kaddu waaye tamit soñu yi nga xamante ne appel yi nga xamante ne ñu bëri nag ñi ngi ko doon woo ngir rek mu gën a teg lépp lu jëm ci féewale fas yéene topp président de la république Macky Sall Abdoulaye Daouda rek mooy ma daal di génne sama candidature nag bi nga xamante ne moom laa bëggoon a jël fas yéene nag topp euh, ndigalu suñu borom fas yéene rek ànd ak président de la république Macky Sall ci atum 2026 yàlla suñu borom fas yéene ko may ndam bu rëy moom président Macky Sall ngir nag héritage bi nga xam ne bàyyi na ko fi ñu gën ko mun a wéyal kon nag ñoo ko dékkandoo Abdoulaye Daouda Diallo toppat na président de la république Macky Sall bootu na ci ginnaaw Amadou Ba fas yéene jàppale ko te sàkku nag ci atum 2024 yàlla mayaat ndam président de la république maanaam ki nga xam ne rek moom la fal coalition Benno Bokk Yaakaar ngir moom mën a wëyal nag liggéey bi nga xamante ne moom la fiy tàmbali ñu leen di fàttali Abdoulaye Daouda Diallo nag mooy moo nekk conseil économie sociale président bu conseil économie sociale environnemental loolee nag indi woon na fi ab xalaat kan moo koy wuutu ak kan nga xamante ne moom lañ ci remplacer waaye ba nekk ni nag nañu jàpp ne rek moom mile moo fay des nag ndaxte jógewul benn yoon ci nguur gi toppaat na président de la république gannaaw xalaat yu bëri waaye tamit waxtaan yi nga xamante ne seq na ak président de la république woote yi xaritam ak i sympathisant luñ ko wax rek mu daal di topp yoon boobee génnut jamono jooje Mame Boye Diao ki nga xamante ne moo Aly Ngouille Ndiaye ñoom nag fas yéene ñi rek jël seen yéenu bopp samp seen dënn fas yéene jongante ci élection 2024 yooyu ñu leen di fàttali bu 17h jotee nag la Abdoulaye Diallo Daouda Diallo doon janoog taskatu xabaar yi wax na lu leer xamal na Sénégal li nekkoon ci xolam fas yéene a rek topp yoon bi nga xamante ni loolee la ko xolam jox ak askan rawatina ñi nga xamante ne nag dañ ko bëgg